ñaata yoon ngay def yàlla lu ko naqari iblis cër bi mu amoon ci yàlla moo tax benn sujóot la ba la bàyyi ñu génne ko xadara bi xoolal nag dañu gis koo xam ne ba mu juddoo ba léegi nanguutu julli mu béy ci ay sujóot lim béy ci ay yu baax kenn xamul mu toll mais ba léegi déggoot faxruj minhaa fa innaka rajiim te jamono tiit ndax. su fekkee iblis moo mën a béy benn sujjuut ñu dàq ko ci pay yàlla bi yow nga bàyyi lu bëri war nga xam ne buñ la dàqut lafzan ñu ngi la pini maanan léeg-léeg ñu tëj ñu génne xaatiru aarif bi ci pay yàlla bi xalaatam yëpp nu mu loree nu mu xeebee nu mu gisee ay bi jaamur yi xam ne aarif bi lay la mais xaatir mu foofu lay bàggante kooka génn wuñ jëmmam ji mais xaatar bi dégg na faxruj minha fa innaka moom mbokk yi gis koo xam ne làmminam la lañ dàq ci xadara bi mën mënta fexe ba jàng junni salaatul faate te daana jàng fukki junni salaatul faate yow mi yen léegi ay aaye nañ ko salaatul faate aaye nañ ko alquran aaye nañ ko wax lu baax ci dara jaame yàlla yi mi ngi yore kurusam mbaxana mi rafet na garam bu bi rafet na mais làmmin wi baaxatut su boobaa làmminam mu lañ wax faxaruj minha fa innaka rajimun léegi na aarif bi mooy toog xool ba xam waa man ana sama lan lañ daq ci pay yàlla bi kenn ku ne boo wéetee war nga xam sa pan-pan fan la nekk li ko waral yëpp mooy ne mbokk yi nañu am adabul xaqi ñi ngi lay soxla la yàlla di ko jégalu képp ku la ñaan njégal boo demee ba bëgg a mer fàttalikul adabul xaqi nañ ko bàyyi xel mbokk moo dal ak kilifa am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy xëy ci la gont waaye maa ngi lay wax na bu yàlla xiiree ci ngay xëy di seet manqué manqué jaam yi bis dañuy xëy ñëpp daje say manqué manqué kon daal ci tënk mbokk yi alquran waxoon nañu ne waqulu li naasi xusnan bëgg naa ñu bàyyi xel bu baax eh, ne lislaam diine jikko la nit yàlla ko suturaal mat gu daj kàpp sax yàllaa ko jagoo léegi nag yaay ji wax nañ ko Moussa ni Moussa ni موسى نيو يراو يات نخي يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى موسى لولن لا من سما يد ولا باي من ابن عزايا دغ رك باي اك القران باي من لب لو مومال سا بوب يالا داف سي توكي بمنا سما يد ولا رك القران فاذا فاذا هي حيه نديت يو جان لا باي من لب لو موم رك مو سوبلكو جان مات لا بايل يفي يالا مومكو soo bañee sa yat wi nekk jaan bayee ko yàlla keroog boo ko moomee rek mu soppali ko nekk jaan sama daayere bi sama mbooloo mi sama xaal bi sama xam bi keroog sama discours bi sa rek mu soppali ko jaan boo ne sama discours bi rek booy wax ñëpp yàlla ñëpp dafa ne nelaw loo boo ne sama mbooloo mi yàlla dana fexe ba kenn du jubóog yow bayal mbooloo mi mbooloo mi yàlla muy darsu yàgg na leen jàngat fi benn bis ma ne leen Malick ak ak Ridwan ñaari bëkk néeg lañ Malik moo taxaw ci buntu aljanna buntu safara xaalu yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk kon Malik moo nekk buntu safara te aw yatam Ridwan moo nekk buntu aljanna te aw yatam déglu ñaari tur yi laa la bëgg a jàngal Malik muy aji moom Ridwan mooy d'accord na ci loo def kon Malik aji moom Malik moo ne ci buntu safara mooy boo fi nekkee di moom yaa nga taxaw ci buntu safara naq rek ci ngay dund. heure bo momé rek yalla sot manam sot ci kaani waaye riwaan mooy yàlla loo def d' accord naa ci kon bayil xel ne so beugé taxaw ci buntu aljanna tuddal ridwaan so beugé ne ibnu safar tudal malik darsula la ñu tim la nan la yaay diw yaay doomu diw xana xamoo sa mam xana xamoo sa nangam nangam ngay jeexu man xana xamoma man ci askan bu nangam laa bokk man sama deret ji deretu gor la kañ ngay nekk gor Cheikh Tidiane dafa waxoon ne moom du nekk gor fee gisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci lay nekkee gor Cheikh Tidiane yi taxaw ne man du ma nekk gor te gisuma yonent bi yow ngay tiitaroo naan diw mooy sama baay diw mooy sama baay te moom mu xamoon ne maamam mooy yonent bi sallallahu